oto bu ngeen koy jox cadeau bi ñu ngi macha allah parce ci daara Oustaz Makhtar Sarr ah, bi ñu xam la. teppil cadeau bi ñu xam lan la. nga jox imam Bachir wala sëñ Salim wala kenn mu joxal la. ay ceeb. Ah, surprise la. dégg nga mu ne sama sëriñ. kii mooy Gambien. mooy Gambien. ah suñu Gambien ba. mooy kii mooy nag moom tey rek laa bëgg ci yow. kii laa kii laa kii laa demoon laa ci ah, la Gambien la. allahu akbar yàlla mooy Karim. ak ñu bindil côté boobu. mbokk yi gis nga ñu ngi nii ci daara oustaz Makhtar Sarr tey aar daara def ñëwoon seet si ko taalibe yi di ko defal benn cadeau ah surprise bi la sëñ Baba wax ne daf ko bëgg a defal sëriñam macha allah مبروك مبروك بارك الله فيك ما شاء الله ما يسعى الحمد لله رب العالمين ndeysaan ah. merci beaucoup lii nag am na lu muy tegtale mooy complice bi nekk diggante oustaz ak tali mais bii rafet na waaw ah, wax dëgg yàlla yow oustaz taxaw yaa ko defar moom sëñ Babou moo ko defar kii taalibi oustaz Makhtar Sarr la kon oustaz nga jaay bii rafet ah. allah macha allah. voilà bàyyi ma boole leen ko sax benn sa nit. yi daal macha allah. yéen a jéemaloon yéen a jéemaloon lii yàlla moo ñu ci boole. macha allah. voilà ci baax na. kii mooy kii mooy kii mooy Gambien Baba. Gambien. daal ma ñëw jàppale si sa kidaran sarmatarsa. Allah'a emanet olun. Bir yayın. wa macha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara. sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziyaara. Babacar Silla al imam. sëriñ Saalihu Congaan. sëriñ Basiru Gueye. ah lii moom yàlla moo leen ci tombale. fan yii yëpp. soxna si mi ngi may wax ne sa ndongo yi am na surprise buñ lay waajal. xaw ma woon lumu. tey ju suba rek bi ma koy fàttali bi may xëy di dem télé ba. ne ma mbaa doo guddee lool ndax sa ndongo yi am na luñ lay waajal. ah mu dëppoo it. yéen ngeen tombé ci. ñu nekkoon ci benn liggéey boo xam ne ci daara ji la doon dellu. Mm-hmm. muy mbokk mi. ñëw tey ci daara ji mm-hmm. baarakallaahu mm-hmm. nga xam ne ñu bari ci réseaux sociaux yi jamono yi ci gis nañ ko ci mm-hmm. muy ndongo daara tey ñu demoon ci waajuram doon sàkku ngir mu ànd ak nun ñëw ci daara ji fan yëpp aar daara ñu ngi ci doon dox ngir yàlla gis nañ ni am na àdduna boo xam ne ñu ngi koy bàyyi xel waaye ci biir ñi koy bàyyi xel am na ci ñu ko bëgg a récupérer mm-hmm. jëme ko ci weneen yoon mm-hmm. bu bokk la yoon mi nga xam ne mooy yoonu daara mm-hmm. ñun ñëpp jaar nañ ci yëfu taalibe taalibe lu mu dégg mokkal la muy woyantoo la muy foyee ñamiy nekkal lu mu for day jël ni muy rombee ci mbedd bant for romb pot for lu mu dégg yi noonu la koy foree di ko wëyantoo dañoo toll ci jamono joo xam ne nag léeg-léeg xale la muy dégg di ko mokkal bu ñu ko filmé mhm. te saare ko dana am beneen bët bu muy wen mhm. mën nañoo jàpp ne loolu rek moom moo ko daloon mhm. buñ ko njëkkee gis dañu ne kiiru ndongo gisuñu ci moom dara luy firndeel ne ndongo daara la ba dogal ñu yëg ne ndongo daara mu ngi ci daara baayam euh, fa lay euh, jàngee di fa génnee dem di jëli saraxam di dellusiwaat xëy na ca diggante ba muy génn di jëli saraxam mm-hmm. di dellusiwaat ci la ko aw ñu dogaale mm-hmm. yëg ne am na rab ñu mu mën ak yu ni mel mm-hmm. ñu filmé ko dugal ko ci internet tey ñoom lañ àndaloon demoon fële ca bari ci ay woy juróom doon ko jël di ko indi ci daara ji ngir bu mottalee fi aliwam ñu ñëw fekk fi waa daara ji ñoom ñu ñuy waajal surprise bi kii di baaba àdduna daan nañ dégg may nettali mbiram mooy baaba Sadio mooy gambien bi jóge woon Gàmbi ñëwoon te doon jéem a dellul boppam te delloom jotul moom laa doon nettali ne leen moom laa demoon Maroc rek ñu woo ma ne ma ah sa waa ji dellu na Gàmbi ma ko ah bon ne baax na ma ñëw def fi ñaari fan rek na Gàmbi maa ngi nga li yàlla def même ñaari fan yi ma def jëli mbokk mi même ñaari fan yi laa defoon jëli baaba mi te Maroc laa jóge jógewaat maam kon am nañu yaakaar moom mii ci dëkkam mhm. bi ñu amee yaakaar ci moom mii mhm. ndax booba ak léegi mhm. jógewaatul ci daara ji lu dul suñu ndigal tabaski jot na fi ñu jox ko paas moo demal boppam ba Gàmbi tabaski ji del siwaatal boppam lu mel ni bii mooy ñaareelu yoon bu ma koy defal bu njëkk ba mooy bi ma surprise na bi doon sargal dañoo xëy rek mu dajale xale yam ñëw ne day wax li ma ko defal mm-hmm. wax seen kër ak na mu meloon ak na mu bindoon ak tey daara ji li mu def ci moom mm-hmm. tey gis nga yéen a ci yamandoo mm-hmm. kado bi nga xam ne xaw ma fu mu ko jëlee fu mu ko defaree non il faut danañ ko lijjanti ndax lii moom <laughs> lii moom dana ma wax fan la ko fan la ko fan la ko lijjanti waaye daal tabaarakallaahu Euh, lépp rek day firndeel ne yaakaar juddu na ci mbokk mi fi ñëw tey ñëw yem ci lii waaye mu yem ci mbokkam mi nga xam ne nii woy juróom yaakaar a taxoon ñu indi ko fi ak rawale ko ngir milieu ba mu nekkoon defe naa moog saa yoo après buñ waxtaanee danañ mën a joxante kene moom it li saa doon def mënoon na ko gàm bi xam na ba tax na nañu mbégte lool ngeen euh, mooy daara Dabaax daara ji ñu ngi ko tuddee maam Cheikh Hadj Abdoul Aziz Sy Dabaax ñi fi nekk ñi suñuy doom lañ ñu jur leen suñu gaño ñeneen ñi suñuy doom lañ ñu jur leen ci suñu ruux ku nekk suñuy doom doomu gaño ak doomu ruux rek a fi nekk ndax ku ci dul doomu dere rek doomu ruux nga ndax kenn ku nekk ci ñoom euh, way jur yu nu amanteel ak ñoom kóllëre ñoo ñu doyloo yëkkati leen dénk nu leen moo tax ràññeewuñu ci biir ñi ci doomu deret ak doomu ruuf ñoo suñuy doom ñoo bokk fu ñuy tëdd ñoo bokk lu ñuy lekk ñoo bokk la garab ya ñuy naan bu ñu tawatee ñoo bokk fa ñuy fajoo ñoo bokk lépp waaw lu ci métti kenn mooy li ma métti lu ci neex kenn mooy li ma neex loolu yàlla dogal kon bu ngeen ñëwee yem ci meneen mbégte la ndax yéen lañ àndal ci daara ji di ci liggéey ngeen ñëw. nana ñu fi mën naa ne jaar. wallaay loroon rek déposé leen. ngeen ngeen dellu ci waar yi ñu ànd ak sëñ daara ñëw ci daara ji. waaye ngeen ne na ñëwaale ba ci daara ji. Euh, ñëw yem ci bii wax dëgg fa yàlla. ñu ngi feesalaat beneen mbégte. bu defee waa daara jaa ngi ngeen ñaanal waaye tamit xaaj baaba ngeen ñaanal mu dem ba doon imaam baaba. imam imam imam Gambe insha allahu taala moom ñim ko seqal ñëpp mm-hmm. euh, ndax ñi mag ci daara ji la bokk seen yaayu daara yi ñu ngi fi samay soxna seen oustaz tamit ñu ngi fi ñi leen di mm-hmm. surveiller ñu ngi fi mm-hmm. seen euh, ñi leen di toppatoo ñuy jànq yi ñoom itamit ñëpp a ngi fi macha allah dafa yàlla yàlla dolli sutura loolu rek lañ doon wax suñ baaw kan lool ci dolli macha allah insha allahu taala xanaa bég ci lool sant yàlla ak ni mbir mi tombee mm. yéem nañu lool. waaw jàngatee nañ ci lu bare bare. wax dëgg yàlla ñun lii taxuñu woon a jóg. fii taxuñu woon jóg. xale ba leen lañ doon jëli mooy xamaat moom oustaz bi wax. mooy ki ñu bëggoon a def ab rek di ko tasaare ci àll bi. te ñu ko fekk ci alquran. ñu dem boppam jox ñu ko ñu war ko indil oustaz Makhtar Sarr. mu def ko fii ci daara ji mottali àlluwaam. gis nga ñuy ñëwaat tombeeg lii. ñu di ko décorer ci lii mm. loo nag lu rëy la mm. jógee Fass ba ci dem mm. ñibbisi dem jël taalibe boo xam ne ñu ngi ko naroon na labal ci géejug àddina nga nangu koo yenu ne indi leen ma sauvé ko naa ko yóbbu sama daara te ci dara ñëw ñu yëkkati turu yàlla décoré ko mm-hmm. loolu junj bu rëy la mm-hmm. moo lay wan ne lépp yàllaay kese mm-hmm. moo tax bi ma gisee ñu décoré def allah man a alhamdulilah lii day lu rëy la sag euh, yàlla bu la cat jàpp yàlla bu la dara lu yàq jàpp lii mi ngi firndeel ba léegi rek ne yaa ngi ci yomb yàlla na yàlla gën a dëgëral daara ji yàlla gën ko barkeel sëñ baaba yow ñu ngi lay jaajëfal bu baax sëriñ dañuy sàkku ngërëmam ngërëm kenn du ko may barke duñ ko may ngërëm duñ ko jënd da ngay ñàkk ñu jox la ko ku sonalul sa sëriñ fexe béggal ko xolom sedd ci yow barke bi wàcc ci yow te lii ci liy sagal sëriñ la bokk parce que mi ngi yëpp ne yow bëgg nga li muy def ci yow loolu dana tax bu doon def benn mu def fukk xam nga kii def lii xalaatul daw ñu xool sa sëriñ ba sa xol sedd nga décorer ko parce que dangaa bëgg ci moom ndax li mu def ci yow alhamdulilah rabbil alamin kon nag yéen taalibe yi royukaay yi ngi nii mm. baaba mii mooy mag ci daara ji wala ci ñi fi mag la bokk waaye wan na leen yoon wi mm. mooy ku bëgg sa barki sëriñ fexee lu bëggal sa sëriñ mm. di jàng te di seddal xolam loolu daal bu ngeen ko defee yàlla dina leen defal barke ci li ngeen di jàng ñi ngi santaat yàlla bu baax di leen fàttali ne kuréel gii di aar daara oustaz Makhtar Sarr mi coordinateur bi moom la suñuy njaboot décoré lii ñun ñi bëgg ci lool nag ñun waa aar daara di ko sagoo di ci bég di ci kontaan parce que mi ngi wane ne ma nga ca yoon wax te loolu rek lañ doon wër ngi lay jaajëfal bu baax yow Oustaz di dalal sunu gan gi nag Hamad Seydi di ko wax ne bismillah daara jaa ngi noonu gis nga li sa mbokk yi def da ngaa ñëw tombe ci mm. ñu ngi lay won yoon bi nag kon nag yow tamit bismillah mm-hmm. Mm-hmm. marhaban bik Serigne Salim bàyyi la yàlla Cheikh Bachir ah jaajëfal suñu soxna yu tedd yi tamit wax dëgg yàlla soxna Fat Ndaw ak soxna Diop Samb mm-hmm. mbaa sa tur Samb rek eh, Samb la ah, Samb soxna Diop rek kon soxna su ndaw si ah, yàlla na yàlla barkee la daara metti na de waaye am na barke góor góorgóorlu leen ci yàlla leen yàlla fay mboolem jigéen ñu tedd ñi ngeen fi dégg ñuy tudd ñëpp ci lii la ñëwoon maam faa wàdd wele maam jaara buso ko du adama aysa bi ngay dégg ñépp daara dong la doon liggéeyal seeni boroom kër a yoroon daara ñu taxaw seen wet di leen jàppale ne ci taalibe yi ne ci daara ji ngir sàkku barke rek ci la njaboot jii rax ci biir taalibe yi ci la amee barke bi ñoom kon coono bu ngeen ci daj rek ñu ngi leen koy baalu àq waaye nag wax dëgg yàlla yéen a ngi liggéeyal njabootu ëllëg kon kon nag yal na leen yàlla fay loolu ci barke yeneen bi ah jànq yi nga xam ne ñoo ñëwee di jàpp ci daara bi ñoom it yal na leen yàlla fay nañu xam ne ñoom am na ñaari bénéfice mooy kay liggéey ci kër ga ñu koy fay bokk na kiy liggéeyal taalibe de yéen ñuy jàngal alquran ngeen ñu liggéeyal kon nag yéen tamit sàkku leen barke ci njaboot bi yàlla na leen ko yàlla defal ci barke yonente bi sallallahu kàddu yooyu rek lañ ci bëggoon a teg nag delluwaat ñaanaan yàlla oustaz Makhtar yàlla guddal fan bi lool yokk wér gi lool yaatal wërsëg wi lool te barkeel ko nag te lépp ànd ak barke parce que sa ndam ndamu daara te boo fi yàggee daanu yëg ne daara dana am ndam l'islam dana siggi ñun xam nañu daara li mu traversé ci ginnaaw ak fan yi li ñuy dund te xam nañ jéego yi nga ci def kon daara soxla na la te ñi yaa koy sagal loo mën waaye moom it moo la sagal loo am daara la waaye nag yaa ngi ko ciy delloo kon yal na yàlla fay jiw bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah aca tëj leen ak ñaan fatiha ayatul kursi qul huwa falaq naas bismillah